yàlla moo lay dimbali. Mm-hmm. moom dafa am métier comme lu mu waxee. Mm-hmm. yàlla tam xëy na man am na lu mu may. parce que man su may def sama gymnastique financière. moom si boppam da koy jaaxal. Mm-hmm. mais dafa am loo xamante ne moom daf ko def si ñun daf ñoo tàggat. ba ñu mat sëkk. man groupe Futur Média nekkuma fi directeur général par accident de non non non non. j'ai quinze ans d'expérience maintenant. 2005 laa pare jàng. te ba ma pare. ñëwul ne ma kaay ma jox la les rênes du groupe Futurs Médias. Hmm. ma ne demal nga jàngi métier. merci ma dem jàngi métier. ñëw raam ce qu'on ma ñëw raam. Mm-hmm. di yegg si. Mm-hmm. ndànk ndànk poste bu nekk def naa ko ci biir kër gi. macha avant may dugg groupe Futurs Médias. Hmm. jaay naa CD. te hmm. pourtant bac plus 6 laa am. jaayal naa GFM ay carte pour pourtant nit ñi mënoon nañ ma gis naan waa doomu Youssou Ndour bi lan lay def nii. <laughs> mais boobu ña may tàggat. Mhm. donc tey fii bu ma fi toogee. Mhm. dama fee war a toog. parce que dama def ay preuves. oui te moom le connaissant. Mhm. du ànd ak nit teg la benn poste parce que par compassion wala par famille wala déedéet déedéet. il faut que tu prouves. tu dangay prouver ah tey GFM lu tax mu jiitu sànni cravache bi il est allé s'entourer de